jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Falilu yaaro ci mboolem law lu yaw Falilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejum bi ay gi neex na Mbàkke Fallu fam nga jumaa ji xal yoonu sengul daagul dugal tariixul ay alaaji fàllo ah, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nuy seetaan ci télévision mafatihul bichri yeesalaat nu sunub siyaar ci cheikh mouhamadul muntaqa ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye itam jox ko wàccuwaay mu joxal ci ko njabootug sëñ Tuubaa gépp bàyyiwunu benn buntu kër Cheikh Mamadul Muntaqa nu gën a jotale moo tax nu jox ko sunu siyaar ngir mu jotalal nu mbokk yi noo ngi leen di nuyu ci dëkk bu sell bii nga xam ni boobaak léegi nu ngi ko ànd ak yéen e, ci màggaluk Cheikh Mouhamadul faadal ibnu Cheikh Mat Bamba Xaadimal Moustapha ci weeru tedd ngaam wi nu nekk di weeru rajab te bu ñu ci duggee nun ñëpp nu bokk di xalaat sunu jàmbaar ja Cheikh Mouhamadul Fadal di ñaan yàlla fayal nu ko bis bii nag la waxoon xalifaam bu Euh, ni ko euh, euh, mooy sama bis bu ñëwatee na ngeen ko fàttaliku bis bi mooy ban bis mooy bis bi nga xam ne ci la sëriñ Fallu Mbakke moom sëriñ Touba gane woon àddina ca Daaru Salaam di fukki fan ci weeru rajab tey jii nag mbokk yi fii nu taxaw di taarixu màggalu Kazu Rajab di kër sëriñaa Afiye Ñang magi Cheikh Mouhamadul Fadal bokk ak moom soxna Awa buso Euh, euh, seen waajur wu tedd wa waaye itam sëriñ Afia Ñang mi nga xam eh, ne sëriñ Touba xadim Rasuul eh, moo ko doomoo woon doom gu wér waaye itam nag boole woon ko ak rakkam ju baax jooju di Cheikh Mouhamadul Fadal ci lu wér loolu moo tax eh, noo ngi fii ci këram sëriñ Modou Mamoun Ñang ab xalifaam noo ngi koy siyaar di ñaan suñu borom defal ko tawfiix defal ko mucc ak wér ci barkeb Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba waaye bu ñu ko tuddee xam ngeen ni sunu jàmbaar ji sëriñ Modou Mamoun ibnu Cheikh Mahamadoul Fadal mi nga xam ni euh, mooy boroom kër gii euh, yàlla dafa dogal euh, ci dogalam wu tedd wa na sëriñ Fallu daan màggale Kazu Rajab nga xam ne bu ko xëyee di màggal ba ngoon mu ñëw seet si waajuramu baax wa soxna Awa Bousso waaye ba mu ko noppee gis nag Euh, sëriñ Fallu wéy di yeesal loola ci magam ju baax ji di sëriñ Afia Ñang euh, loolu nag la euh, sëriñ Maamun moom sëriñ Fallu di xeeñtu ni mu ko daan defee gis ngeen ko dem na Daaru Salaam waaye nag tey jii muy tëje fii ab liggéeyam ci kër sëriñ Afia Ñang télévision ma fàttewoon bi si ni mu ko baaxoo defee rek daal leen ko ci toppale at mu jot del nañ ngir ànd koog yéen di xaarande fii may waxeeg ak yéen nag sëriñ bi mu ngi ñëw di sëriñ Modou Mamoun nu bokk ko teeru ànd kook njabootuk sëriñ Afia Ñang gépp kon ma bàyyi leen eh, eh, sëriñ Cissé wan leen liggéey bi jërë ngeen jëf الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñogi nuyu sëriñ bi di ko dalal jàmm di ko massawu coono di ñaan jéego yi ko fi indi ak képp koo xam ne ñëw na fi ngir xañtu jéego yi nga xam ne moom lay dundal muy jéego sunu kilifa gu baax googe di Cheikh Mouhamadul Fadil képp koo xam ne dikk na ngir loola sunu boroom def jéego yépp muy aw yiw di njéggal di pajak aajo bu sax wa baatinan xaalan wa maalan wa ma dalika ala llahi bi ñoo ngi jéggul ci dagg bi waaye nag loolu moo dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne boo déggee ñuy nodd na nga ca ànd lu mu wax nga wax ko ba mu àgg ca hayya ala ya bu ca mën a doon nga teg ca laa hawla wala quwwata illa billah kon dañuy nekk ci sunna soosu waaye dégg na nitam sunu waajur yi wax ne sëriñ Touba wax na soxna sa doon wax ak moom ñuy nodd sëñ bi jekki-jekki ne tekk ba nodd ga daanoo fekk soxna si teg ca dara doon wax mu ne ko xanaa xamoo ne ñuy nodd ngay wax dafay mettil sukuraat nee na mu ne ko ay mbàkke mënoo ma ko a wax mu ne ko xanaa dangaa bëgg ma bokk ci waaw <laughs> nag yooyu yëpp mooy tax waaye li ci am solo rek xam naa du mën a gudd baaxintal rek la ndax wax kenn ku ne xam na ni waxtu mi ngi ci ay yitte di dox ci loo xam ne lépp ci cadre bii rek la waaw ci liggéeyal sëñ bi la ak dundal jeexit ji nga xam ne moom la fi waajuram bu baax wa bàyyi woon kon ñu nuyu ñëpp di nuyu mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi ci turu Baye Xaadim mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Mouhamadul Mahmoud borom daara ji ñuy jot li borom kër gi jaarale ko ci moom ko ci ñëpp daayira bi taxawu màggal bi ci ni mu gën a rafete te sëriñ Jili Ñaŋ jiite ko taalibe yi nga xam ne ñoo aje ci kër gi am di jàmm yi dëkkandoo yi bàyyiwun kenn ñépp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi ñaan sunu borom mu nangul nu lépp lu nu ci def tan yàggu koo fekke te tase cee ngërëmal borom bis bi yaakaar naa waxati lay doon rekk ndax loo xam ne moo xewoon daaw jéeg ñu wax ca moo xewaat daaw ñu wax ca moo xewati ren kon waxati rek la waaye santati la rekk santati la eh, ndax eh, falsafa bi buñ ko xoolee sant la rekk la Sëriñ Tuuba amoon te mooy am na lu mu mënut woon a ñàkk te xëy na bu ko suñ boroom jàppale woon ba jox ko moyen yi mën a tax moo liggéey liggéey bi mu liggéey ba yayoo ca loola ba am ko xëy na dana demee neneen moo tax bi ko suñ boroom tegee ci loxoom moyen yooye mu ne nan ko santale yàlla gis nga départ ba la doon sant yàlla kon mooy wóoroon na ne ko jomam ak fitam ak sellalam ak dëggoom ak ndimbalal yàlla yoo xam ne am na ci yaqiin wóoroon na ne ko bu demee fa mu war liggéeyee dana fa am lam soxla loolu wuute ak ku bëgg a tukki rek sonn lool ci visa bis ba nga ko amee doo ko fàtte mukk waaw loolu moo tax falsafa boobu moo tax mu koy wax sëriñ Fallou boo ko xoolee loolu la ndax fi ko suñ borom jaarale ba mën a liggéeyal sëriñ Touba ba am ci ngërëmam boo ko xoolee nafsul falsafa la kon loolu ay duruus la rek yoo xam ne dañ ko cee war a jël duruus yi weesu wut ne bu la suñ boroom xéewalalee war nga koo sant waaye boo koy santit war nga koo sante ci anam bi mu ko bëggee waaye doonut ci anam bi nga ko bëggee yow kon am na côté boo xam ne festivité yi la baax na ci naam waaye nag am na leneen loo xam ne mooy ibaadaat yi nga xam ne moom nga ciy def xasida yin ciy jàng alquran yin ci jàng bernde yi euh, silatu rahim bi jokk mbokk gi yooyu yëpp sëriñ Fallou daf koo jëmmal ndax Daaru Salaam googee euh, mu euh, xam nga loolu lépp li mu def lépp ak lii ñuy dundal lépp saklun wala li ñu def saklun min askali tax lii di dikra hada xadat al taarixi al bi du dara lu weesu li ci xewoon xam na ne sëriñ fàllu mi ngi feeñ euh, fi hadayni zarfayni al makaani yi wa zamaani euh, yi salaam ci guddik euh, laylatul ci laylatu isra al kon yàgg nañ koo ci ñun dafa mel ne benn doj boo doon sànni ngir am ci menn picc far nga jam ca ñaari picc ndax al isra wal mi'raj kenn ku na xam ne jullit yëpp a ko bokk ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon jóge al masjid al haram dem al masjid al aqsa ba mu fa jógee mu yéeg ci asamaan yi ba àgg sidratul muntaha ah summa danaa fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa maa kadabal fuaadu ma raa sunu borom jox ko fa lam ko jox kenn ko ne xam na ne julli ak lim représenté ci lislaam xam nañ ko mu joxe ko ko fa lépp lu mu daa joxe daf daa yeble ñu dikk fekk si ko fi mu nekk jox ko ko en tariqil wax yi waaye bee mooy bi nga xam ne moom daf ko woo mu ñëw moom mu jox ko ko xam nañ kon importance boobu léegi loolee nag buñ gisee sëriñ fàllu ci jëmmi guddi googu mu feeñ ci ba noppi suñ borom feeñal ci loxoom lim ci feeñal ci liggéey bi mu liggéeyal sëriñ Touba muy jumaa ji nga xam ne euh, doo gis jumaa ju ko ëpp ci Afrique gii doo ko fi gis doo ko gis ju ko gën a taaru ci Afrique gii wala xawma ko man euh, loolu te jumaa xam na ni ku ne julli ku ne jumaa ne julli mu boole ca nekk imaam lim fi nekk lépp donc dañuy gis li nga xam ne moo dox ci diggante ñaari xew-xew yooyu nga xam ne mbiram suñ borom la du neen doonut doonut hasard du sut fa mbiram suñ borom la loolu nag mu boole ca nag euh, liggéeyal Serigne Touba ba am ngërëmam te loolu yi lii nga xam ne moo représenté buñ waxee julli bu ne jumaane julli kenn ku ne xam ne bokk na ci Euh, li mu amee ngërëmal Serigne Touba amoon na ko lu ko jiitu waaye lii beneen ngërëm la loo xam ne ndax dafa ñoroon sëriñ Touba lool te suñ boroom defal ko ci ak jagle loolu nag kon bu ne dafay sant sëriñ Touba ci anam gi mu koy defee di dem Daaru Salaam di fa jaamu yàlla di dikk fii di euh, li euh, mbokk gi ak di ko kii ngir ngir dimbalenu la ngir dimbale ñi muy fekk si la waaye bu toogoon fa mu nekk moom du ko wàññi dara teyit ñi fii danañ ko fekki ndax ay taalibeem dong lan kim daa fekk si dafa jàpp ne sëriñam ma ko doon fekk si waaw moom nag xay na moom ci baax ak boppam moom moo gisee noona ak ci sàmmoonteem mag li nga xam ne moom la diine ji laaj islaam ci euh, silatu rahim ak yu mel noonu lu ci mën a xew daal nan xam ne lii moom àgg na ci ñun ci sunu xol ci rëy jéegoom yi loo xam ne mënuñ koo temps biir lootu nañ ci temps biir ko sëriñ bi nag ba mu gisee yonent bi xool xool xam ne lottu nañ ci temps biir ban façon nit la la wax la mablaghul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru waaw fa mablaghul ilmi fiihi annahu bashar kon nag ñun itam fa mablaghul ilmi fiihi uh, hada masdaru surur <laughs> wa saada nag raaya uh, ba moom mënuñ koo temps biir lottu nañ ci waaw bég nañ lool ñu ngi lay ñaanal sunu borom gën laa dëgëral te may la tawfiq ci li ngay lëggeel Cheikh Mahamadul Fadil ba cëral la ci loo xam ne daal bu fekkoon ne dañuy séddoo kenn du la ci ëpple yal na la ko suñ borom defaral lii nag xaw moom xoolaat naa ko waaye ah, xarbaax ak sëñ Fallou yëpp feeñ na ci ndax ah, man mii xam naa ba ni tàmbalii lii bu fekkee feeñ naa itam ay ñaari at ak ñett duma ko weesu booba Cheikh Mahamadul Fadil day toog ca lal ba sama waajur toog ci suuf di ko santaka wax la muy wax tey nag Cheikh Mouhamadul Mahmoud toogaat ca lal ba <laughs> taxawee fi taxawaay sëñ fàllu sëñ fàllu min xéewalal ka ko daa defal loola toog ci suufam <laughs> di fedd li cant gi ak ndokkeel loola it yaakaar naa ne mbiram suñ borom la mu ngi ci sant bu baax a baax di leen gërëm di gërëm ñëpp jërut guddal ne moom li nuy wax lépp moo nu ko gën a xam te bu ko waxee mooy gën a jotal bu ko defee bu jotee kàddu gi moom ci message am euh, li nga xam ne mooy ci diine ji li nu ci war a mën a jariñ ak ci àdduna ji lépp moom du ci bàyyi dara ndax am na ci xibra ci euh, jëflanteeg moom ci yu mel nii yàgg nañoo dégg message am looloo tax jërul ñuy guddal ñu ngi sant bu baax daal di ko sant bu baax di sant mbooloo mépp ci tuuru borom kër gi jaarale ko ci baax xaadim ko defee ak ñu nga xam ne ñooy ay rakkam ak i doomam ak daayira bi yëpp ak taalibey kër géej am di jàmm yi di ñaan ñu yàgg koo fekkee te bu mujjee ñëw rek gën ba ba ko jiitu woon dàq ko ëpp ko ngërëmal Serigne Touba ak ngërëmal Serigne Fallou jërë geen jëf sant naan bu baax jërë ngeen jëf. te nag wér ci barki borom Touba mu mel ni rek li yëpp day taarix ak li ak li fi jaaroon muy law nag te mel ni lu gën a jàll rek di gën a feeñ te tànk yooyee mooy dox ba tey rek te dara dara dara dara maanaam wutu la ñu tànk yee kon ñaanal rek sëñ bi ni mu fii ñëw moom yàlla na fi yàgg di ñëw di yàgg fekk sëñ bi moom it sëñ Maamun mii ne ci biir moom yàlla na fi yàgg di fekk waaw yàlla na fi moom moom ni yàlla na fi gën a sax ndax ku ñu war a ñaanal ndax koo kii mooy kii li ñuy wax bibliothèque yoonu murit bu ñuy wax bibliothèque yoonu murit ci jëmm ji la nekk xëy na nag ñun ñii tànk yi xamuñ ci dara waaye dégg nañu kon nag dañuy bañ a guddal ndax gannaaw noddoon nañ te sëñ bi xam naa ne moom it mu ngoon ci démb ba tey jeeg coono yi dañ koy jox rek moom mu sànni si ay kaddu barkeeloo ko ci ci ci ci ci kaddoom ya buñ noppee mu ñaanal mbooloo mi incha allah buñ fi jógee ñëpp yokku rek. day rek waaye kaddu gi moom suñuy kilifa jëloon nañ ko jox ko kii ñu ko jox ndigal ci moom. mu jotali ko ci ni mu gën a jote gën naa rafete macha allahu taala kon dañu am mbégte bu baax rek ci jotaay jéegoy sëriñ bi ak kub di ko ñaanal yàlla euh, li muy xeñtu mooy jéego Cheikh Mouhamed euh, yàlla defal ko ci lu kawe njortam mu yàgga ñëw ci béréb bi yàgg fee fekk kilifa gi ak jëwriñam yu baax yi nga xam ne ñoo koy ñooy ñooy liggéey bi ak ñun bi yi ànd ak ñoom ñëpp Eh, ñu ànd ko yàgg koo def lool rek ni nga xam ne noonu la ko borom kër gi eh, borom kër eh, woon xam nañ ne sëriñ bi ni ko sëñ Fall waxe xat nga lool wax dëgg yàlla fan yii xat-xat yi bari na ci lool waaye lii dafa nekk lu am solo ndax ku tedd ki fi daan ñëw mu Cheikh Mouhamadou Fadel daan fekk si mbokkam sëriñ Afia bi sëriñ Afia jiitoo Euh, njaboot gi des fi dafa wéy di fi ñëw moom di fi fekk njabootu sëñ Afe nga xam njabootu sëñ Afe gi mu fi jàpp na ne ñooy sëñ Afe te sëñ Afe itam euh, mooy soxna Awa mi ko taxoon di jóg nag dëgg-dëgg kon bu fekkee ne Cheikh Fall def na loolee ba euh, wàcce wàcc bu liggéey yow nga bokk ngay njabootam di wéyal loola ndegam njabootu sëñ Fall sëñ Afe la sëñ Fall doon xool ci ñoom sëñ Afe soxna Awa kon ñun war nañoo ñoo war a gën a xool jëm Cheikh Mame Fall ci yow te xam ne kon sa jéego yi wuutewul dara dara ak jéego yi nga xam ne moom la Cheikh Mame Fall dox kon yàlla na yàgg lool te yàlla na sax lool te itam ñu ngi lay sago di bég ci yow bu baax a baax di la ñaanal sa fan wéral sa yaram te yàggale sa yéene ci kër Cheikh ak ci kër Serigne euh, ñu ngi sant bu baax a baax a baax daal di bég amuñu naa ndigalee tax waaye amatuñ fi woon ñu war a wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa ummati ajmain xam naa wax ji dama koy boolewaat ci rek di kilifa yi wax mooy sant daal munta weesu sant te xol yi sedd nañ ci jéego yi alhaaj Mouhamadou Mahmoud Mbacké def ci xeñtu jéego yi way juróom ya kon sant lañ ci def ak ñaan sunu boroom tabaaraka wa taala nga yàgg fee ñëw yàgg fee fekk boroom kër gi di alhaaj Mouhamadou Mahmoud Niang yàgg fee fekk rakkam yi yàgg ñu fee fekk ñu ni fekk bi taalibe yi yàlla yàgg lool te yoon wi ñëw yàlla dàq ko jiitu ndax ñi sosoon lii bañ koy sos tuuti woon na waaye rek dafa mel ne mu ngi bëgg a daj senegal ba jàll ci bitim réew te ñoom loolu lañ doon ñaan ndax ku yàlla mës a wàcce ci kaw suuf soo fi jógee te nekkoon ci lu baax la ngay yéene mooy am ku la caaw wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum diina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum suhada is xadara yaqub al mawt is qaala li banihi ma taabuduna min baadi xam nga kooku la ko ñoroon mu nekkoon ca la doon testé njabootam nga ba xam bu fi jógee dañ ko wéyal wala déet ndax loolaa ko ñor te nag nit ñu baax ñu ñoo fi wuti yónnante yi Cheikh Mamadou Fadal mi sosoon lii ànd koog mbokkam ma sëriñ Afia Ñang lii rek la bëggoon moom ak njabootam wéy ci waar ba mu leen rëddaloon ci lu baax kii nga xamante ni te moo fa njëkk wut sëriñ Afia itam doon ko doxal ba waxtu wii njaboot gi itam ak tëlee jàpp ko ñu koy wëyal waaye lu mu tële tële te yàlla nañ ko sunu borom bàyyil mu ànd ak wér fanam gën a yokk sëriñ Mamoun mii itam yàgg ko fee fekk ba lu mu yéene moom itam ci liggéeyal ko ci toolab lislaam rawat na ci toolu Seex Muhammadul Fadal sunu borom defal ko kattan ak man-man ba mu def ci lu kawe njortam ah kon nag <laughs> loolu mooy mooy wax ji ñoo ngi sant bu baax daal kon sëñ bi wax na ne incha allah kàddu yi gàtt lay doon rek bu ñu noppee incha allah ñu barkeelu julli bi barkeelu wàll ci lépp rek sëñ bi nag bu toogee bay julli ba noppi. ñëpp tàllal loxo mu ñaanal mbooloo mi allah. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bi nee na mu ngi nuyu mbokk yu baax yi fi teew yëpp. di ko tàmbale ci borom kër gi. alaaji Mahmoud alaaji Serigne Mahmoud Mamoun Ñang ak ñabootam bu tedd gi. muy rakkam yu tedd yi. doomam yu tedd yii ak jabootam gu tedd gi ak mbokk taalibe yu baax yi sëñ bi nee na mu ngi nuyu ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ne sëñ bi sax nee na kàddu yi dañ koy du bañ a gudd jarul muy gudd ndax nee ku am kudd du lakk gannaaw njaboot gu tedd gi di alaaji Mouhamadou Fadal Ñang ak sëñ Afiye Ñang ak alaaji Mouhamadou Fadal Bousso kaddu yu rafet yii ñu fi jibal kenn munu see teg leneen lu ko dàq waaye lu ko gën a jub kon nag kàddu ñaan rek la ñuy def ak sant ndax ñoom de waxuñu de dañoo jëf ndax lii dafa yàgg dañuy ñaan yàlla sofal ñu ko ci tànk yooyu jiitu yoon ci tànk yooyu nga xam ne sëñ Fallou daan na ko jóg di seet ci soxna Awa Bousso radiyallahu anha ak di seet ci sëñ Afe Ñang radiyallahu anhu ak di seet ci sëñ Mouhamadou Mamoun Ñang mii ak njaboot gi fi nekk ñëpp ñu ngi ñaan yàlla ñu yàlla sofal ci tànk yooyee mu sofal ñu ci tànk yooyee ci barke borom Touba barke Cheikh Mamadou Fadel. yàlla nañ ko def nag ay at yu bari lool. mu ànd ko wér. ak yokku ak ngërëmu Sëriñ Tuubaa ak xéwal yu dul jeex. ci barke borom Tuubaa ne sant du weesu sant. ñaan it du weesu ñaan. la ko sëñ Fallou jublu woon moo ko xam de. waaye nag. xam nañ ne ab yiw rek la. ndax sëñ Fallou ni ko xamee. dafa waxoon ne. yàlla daf koo def. mu koo xam ne. ngottul te lu baax la bëgg. te lu baax la bëgg. te bu sañoon bokk ñëpp. te bu sañoon yi bokk ñëpp. te loolee la ko yàlla defal. kon tànk yii. nga xam ne dox si nañ ko fi. yàlla nañ ko yàlla sofa ci tànk yooyee. ñu ngi jégalu coono yi rek. ñu ngi jégalu nag coono yi bu baax. ndax ku ñëw sa kër. dangaa war a ñëw dugg sa néeg dugg sa néeg. dangaa sa dugg sa néeg. waaye na wax dëgg yàlla teguñu loon benn coono. kon sëñ xaadim. ñu sant ñu sëñ bu baax a baax. ak njaboot gi yëpp. ak taalibe yëpp. teraanga ji macha allah na lool. mot na sëkk. te bi ñuy ñëw. dañ koy def turu suñu kilifa. sëñ Abo Mbacke Baraka. moom mii fi togg sëñ Fallou. te mot ko sëkk. ñu ngi koy ñaanal tim mu yàgg fi lool ànd ko wér lii muy liggéeyal bëgg ko liggéeyal sëñ Fallou bëgg ko tuba sëñ Touba mu àggale ko ci sago te ñu fekkee ko ànd ko ko moom di ko def na suñ turu sëñ Basiiru moom Cheikh Mamadou Fadal ndax cër jii mu am fii ñun kenn xam amu ko ci kon bu ñu bu ñuy def lii moom mee lañ koy defal ndax li muy junj moom xam na ngeen xam ngeen ko cër bi fi am. ne moom cër gii mu fi am. dafa bokk ñun bañ fi am ñun bokk fi am ñëpp. amaat fi cëru boppam nag. moom nag mu am fi cëru boppam nag. moo xam ne kenn fekk ko ci. Ah, kon nag lii ñuy def moom mii lañ koy defal te léegi léegi ñoo nekkoon ci cérémonie ba ñoo bokkoon tim nekkoon léegi ci nindi kon lépp lu ñu fi def moom lañ ko fi defal suñu mag ju baax ji suñu kilifa gu baax gi ndax léegi dootul magu kenn mooy sëñ tubaa di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ne li ñuy def fi moom lañ koy defal ndax mooy Serigne Touba moo fi Serigne Fallou moo fi Serigne Bassirou moo fi Serigne Afie moo fi njabootu waa kër Serigne Touba bi yëpp te am na lenn lu mu xam loo xam ne moo xam naa tuuti ci diggante mag wóllëre ak waa kër gi ak diggante mag Serigne Mouhamadou Mamoun Niang mii ne sëñ mi ne am na tuuti lu mu ci xam bu yàgg la. ne wëllëre bu yàgg la. bu xóot. ñu seq ñoom ñaar du ñu bëri bëri bëri. am na nag loo xam ne nag du yem ci mboo duñ ko wax ci mbooloo. moom mii yilif yoon bi. lépp lu ñuy def ci yoon bi. moom lañ koy defal. te xam ne ñëpp xam nañ pastéefam. buñ ko waxoon ne jaar fii ñu jaar fii ci nindi buñ buñ ko waxoon fi comme si nindi la jógee nekk nañ ñu jaar fii ndax dañuy royaat si tànk suñ fàllu ya ne wóor na ma kon dina egsi fii waaye ñàkk ko ñeme te ñeewantal ko ak war ma moo tax duñ ko wax waaye yéen ñëpp xam ngeen pastéefam te buñ ko waxoon rek nga gis sëñ Muntaxa mu ñëw ak cawarte lool sax ndax moom lu baax rek la bëgg kon léegi nañ ko ñëpp xam kon yàlla na fi yàgg ànd ko wér ba lii muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba lépp ak sëñ Basiiru Mbàkke ak yonent bi ak yoonu murid gi yëpp mu àggale ko ci sago ci ñu fekkee ko te ànd kook moom te sëñ mi nee nañ ñañ yàlla yàlla ñu ñëpp yàlla nañ fekkee déwén sëñ Moodu mii nekk ci kanamu kër gi suñu mënoon dañ koy delluwaat ba mu doonaat ñaar fukki at ba mu amaat ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom ndax njariñ la ci yoon bi njariñ la ci mbokk gi te wutaayam nag a ah, lu jafe lay doon te moom nag lu yàgg ñoom lañu woon mbokk la xarit la wëllëre la sëriñ la wettandoo la waxtandoo la ndax ñoom ñaan daan nañu waxtaan lu bare bare bare te seen Tuubaa rekk ñor ne am naa sax lu leen fi waxoon fi daaw xam nga daaw xam daaw jéeg daaw daaw daaw waaw lu kéemaane woon la ndax ku xam fi mu jaar jaar ko jaar ko kilifa bi mu fi jaaroon mu nekkoon ci waajuram ba digganteem ak sëñ Fallou digganteem ak sëñ Cheikh Mbacké digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké digganteem ak sëñ sëñ Saliou Mbacké diggante moom ak sëñ Abdou Khader Mbacké diggante moom sëriñ ak kilifa yëpp ñu ñëw fekk fii mu mel nii ak nii mu toogee nii loolu jikko la loolu yombul te am na ñoo xam ne jegewuñu fi jegewuñu fi njaar ak moom nii yëpp ñoom fi mu jaar kilifa yooyee te li ci ëpp benn kilifa rek la ñuy jaar la ñuy jaar la ñuy jaxasool wala ñaar waaye ku dem tey jii fa ñu nekk mu wutee fi lool te jamono yi moom ba mu koy nekk wallaay boobu la d'accord waaye ñemu nekk lu wóolu woon nañ ko lool loolu nag yéen ñëpp yéen lii muy wax nii yéen a ko gën a xam ndax sëñ Modou école la ndax fii mu jaar bu nekkoon rek àdduna rek moo ko taxoon a jug kon fii de ku ne xam ne tey sato lay doon ah, waaye yéen ñëpp xam ngeen ko te loolu moom mus na see wax ak moom ndaw daa wa wax nettali lewoon na leen ko fi du jar nañu koy baamuwaat ndax jataay bi dafa xat ndax ñeewante lañ leen ci toogaay bi te julli jot na. te taxawal nañ ko te nit te borom kër gi nitu sunna la fii kër sëñ Touba la kon sëñ Touba moom diine rek ko ñor li muy def lépp diine la moom lu muy def lu ne diine moo ci war a jëkk moo ci war a diggu moo ci war a mujj li ñuy def sa diine la waaye julli nag moom dafa raw lépp kon bu agsee lu ñuy def lu ne lu mu baax baax baax dañ ko war a bàyyi dem julli doon àggale la ñuy def doon la ñuy def sax julli la ndax wax lu baax la julli moom weesuwul fàttaliku yàlla sant yàlla bàkk yàlla sabbal yàlla te li ñuy def loolu la lépp li ñuy def feddli ak bokk la feddli kóllëre la feddli lislaam la feddli diine la ndax dëkk bii dëkku diine la ñi ci bokk ñëpp ay nitu diine lañu kon nag dañuy santaat bu baax a baax tey ñaan ñu yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bari mu ànd ko mucc ak wér ak xéwal ak jàmm ak yokku ci barke borom Touba te kenn bañ a manqué sëñ Modou mi yàggat fi lool njabootam bi it ñoom ñu yàgg fi lool sëñ Xaadim jëwriñu kër gi. suñu xel de sedd na bu baax a baax a baax nga jot su ñu ñaan suñu cant suñu ngërëm sëñ Modou ak njaboot gi yëpp rek te te doy nga ñu sëkk nag te xam naa yow ni nga koy waxee ñun moom ñu lot nañ si tuuti ñu ngi jégluwaat nag bu baax a baax coono yi ndax teraanga yi bari na lool te ñu leen ko woon dañoo bëggoon ñëw siyaare rek siyaare njaboot gi ngeen defal ñu ñaan dellu si daara ja ngir barkeeloo ko tànku sëñ Fallou yooyee ndax coono yi wallaay teguñu leen ko woon seenu xër rek la seen bëgg lu baax ak defe ni ngeen toll ku ci ne nga toll rek noonu ngay defee waaye teguñu leen ko woon bu ñëwoon naan ñu si sax kaasu kaasu ndox du wàññi dara dara dara si tànk yooyee tey du ko yokk it ndax ñoom la def li ñuy def nii moo kawe gën a kawe lépp. xam ngeen seen bëgg-bëgg seen pasteef moo gën a kawe loolu yëpp waaye seenu xër seenu baax ak defe ni ngeen todd moo tax ngeen defee nii kon jërë ngeen jëf di sant nag colonel mii toog def na jëf ju rëy bisu sëñ fàllu gi fekk mu nekkoon ci Mali ci liggéeyam mu nekk mu teg ko fa ñëw ci bisu sëñ fàllu bi loolu rëy la sëñ xaadim mi ngi wax léegi naan moom ñoom ñii ñoo bokkoon tey fanaan démb fanaan ci bâche bi ak njaboot gi ba bët set mu dellu këram mu demoon ci cérémonie bi ñoom ñoo fa bokkoon nekk te tey ba léegi mi ngi ni toog ko loolu na Pastef la dafa am suñu benn mbokk day wax ñett bul ko xeebal nit ku ko xeebal nit yaa ko tooñ ne nit boo ko xeebalee sëriñam yaa ko tooñ. nit boo ko xeebalee bësam yaa ko tooñ. nit boo ko xeebalee soxlaam it yaa ko tooñ. te te loolu yëpp nag macha allah daje na lépp lépp lépp lépp jox nañ ko wàcce waayam daje na ci bis bii ndax suñu bis la suñu soxla la suñu aajo la kon xeebaluñu ko kon ñun ñëpp yàlla bu ñu yàlla xeebal suñu dara. yàlla suñu lépp yokku suñu yiw yëpp yokku biir ak biti zahir ak baatin suñu njaboot gu tedd gii sëñ xaadim ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na leen yàlla fal cat ndax ñoom ñu ngi leen di dégg bu baax ñu ngi defal diine liggéey bu rëy diga defal lislaam liggéey bu rëy ñu ñëpp ñi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di dégg fépp ci média ci jumaa fépp ak ci conférence yi ci jumaa yi ak cant yi ñuy liggéey liggéey bu rëy ci lislaam te loolu jamono moo ko laaj ndax jamono communication lañ lañ toll suñu ñaari référence yu mag ña suñu ñaari royukaay yu mag ña suñu sëriñ ak sëriñam muy sëriñ tubaa radiyallahu anhu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay communicateurs yu mag la ñu woon. risaala bi ñu doon jot li. risaala bañ daan jot la woon. yonent bi nee képp kuy làkk arabe. yonent man maa la ko gën a dégg maa la ko gën a mën a wax. maa la gën a set làmmiñ ah, lam daan tënk oh, dañ koy indi dañ koy indi dañ koy jox lu gën ci wax dañ koy an dañ ko jox moom lu gën ci wax ah, bu waxee rek wax ji day dal dal ci xol mokk ñu mën koo mokkal mën koo téye mën ko jëriñoo suñu kilifa gu tedd gi noonu it la meloon ku ne xam ne lim daan tënk moom Serigne Touba di ko def ay tomb di ko def ay rëdd lislaam rek la daan tënk lislaam nag rawatina nag li mu daan bind nga xam ne kenn xamul lu mu toll te loolu communication la te jamono jooju looloo fa xewoon te teewul ba léegi mi ngi valable fu ñu la nettalee waxu Sëñ Tuubaa rek lu mu gàtt gàtt bu nekkee moo ko wax ci xol lay dem kooku yéen ñëpp xam ngeen ko ñoom nag ñu yëngu ci waar googu ñu ngi leen di bàyyi xel na bu baax a baax. te muy liggéey bu rëy nag te mënatu la ñàkk ndax léegi xewal gi daa bari péex bi neex lool kaar léegi kenn xamatul lëtë kenn xamatul kenn kii ak kii te loolu jamono neex rek moo ko waral ak ñaan gu nangu jamono yi nga xam ne dañ na wax ku daan ku daan taseeg tubaab da ngay daw laqatu wala nga dumóoy ba mu jàll waaye léegi wute naag léegi léegi da ngay toog sa néeg wax lu la neex bind lu la neex daal posté sàndi mu wër àdduna te kenn du ci mën dara kon nag képp koo xam ne yooyu da nga ciy wax di delloo ci nit ñi di fàttali li ñu bokk di fàttali li ñu am koo dañu ci war a sant bu baax a baax kon tool bu rëy la am na ñoo xam ne bu ñu ko xamee it sayuñu ko ndax am na loo xam ne boo ko sañee yow. na nga ci demee day tax doo am loo ci du sañ kon na yéen yi ciy yëngu dañ leen ciy ndokkel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla lafal leen cat lafal ñu ko ñu ñëpp ak làmmiñ ak seytaane te yëngu yak dal yi yàlla defal ñu ko ngërëmal seen tubaa ci barke Cheikh Maodo Fadal kon ba déwénte incha allah jërë ngeen jëf jëf kon nag waaw ñu toog leen may leen tuuti eggale ñooy eggale bisimilah nañ dañ noppeekuñ de ne loole mu wax sëñ muntaxaa ne ñi bi ñu xëyee jàng ba noppi ba jàngum xaside bi jàng ba noppi dañoo wax ne ko dañoo wax wax sëñ Saliou mi doon jàng ne moom de day dem ci sëñ Muntaxa moom mu yóbbante ko ne ko boo demee sëñ Moodu Maamun Mbàkke nee na sëñ Modou Mamoun Niang nee na. lii ñu fi doon def. lii ñu fi moo fi teewal Cheikhul Khadim. moo fi teewal Cheikhul Khadim. kon nag addiya jàngoog. kon addiya gàngoog. ba mu demee wax ko. ba mu demee wax ko. mu ne ko. mu ne ko. xataay bi moo tax ñëwuma. mu ne ko xataay bi rek moo tax ñëwuma. waaye dellul yow ci sa jëmm. waaye yow dellul yow mii fi ñëw dellu si jëmm. teewal ma teewal ma fa. kon mooy lii sëñ bi wax kon mooy lii sëñ bi waxul léegi sëñ mu taxaa rek. lii nga xam ne moom moo fi ñëw nag. lii xam ne moom mii jëmm ji moom mi fi mi fiy ñëw. sëñ Fallou Daaru Salaam la daa dem. ndegem moom daa sëñ Fallou daan na dem Daaru Salaam. dafa fanaani dafa fekk turandoom. dafa fekk turandoom. loolu leneen la. kon kon moom bu ko tuddee sëñ Modou Mamoun. sëñ sëñ Fallou daan ko fi fekki. mu ñëw di fekk fii. mu ñëw di ko fekk fii. loolu dafa am lu nekk ci biir. moom liggéey la boo xam ne moom mii lañ ko dénk moom mii. kon nag ñun lu suñu wàll. muy Pastef. muy Pastef. ñu ñaanal. ba Pastef fi gën a jëm kanam ba Pastef fi gën a jëm la ci nga yéene yëpp yàlla nañ. lañ ci yéene lépp ñu lañ ci nañ ko mën. wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.